jauh ñi nga xamé ne dama and ak ñom ci mouvement bi nga xamé né moy l'émergence pour tous ma créé ko depuis 2006 tudé won ko l'idée qui émerge pour le retour de son pays té ñi ko créé won di ay chef d'entreprise yo xamé né ñi ngi nékkon ci France ak ñu nékkon ci Italie ak ñu nékkon ci Espagne ñooñu ñep ñu accompagner ma ci ba barki demb ci 2017 bi ma jël sama tank and ak lu mat ñetti nit nu dem wër Sénégal noo ngi tàmbalee fii ci kaolax dem ba préfet dem ba siganchor bindiona Kolda vilingara, jóge fa dem ba Matam Podor ñëw ba saint ñëw dem euh, kebemer, dem Ngaay dem Thiès Pout dem ba Dakar de Lucy def Mbour def Gossas def Fatik, Kaula, Durbel, ñewat Touba binu defé lolu def ko ci wèr un mois quinze jours nu jangat nous ko président Macky Sall defon ci benam soxlay askan wi musuno dégg fenn fo émergence amul kenn neenu fa croissance amul xana kay luñ ñuy wax kon mooy war nañ ci gën a gisaat suñ bopp war na war nañ noo dolli mbaa amagun ci lii wala amagun ci lee kon nu ne mouvement bi kon nañ ko tuddee l'émergence mais l'émergence pour tous l'ensemble de ñi nga xamee ne ñoo créé mouvement bi ma jiite leen nenu nañu ko tuddee l'émergence pour tous ma def discours de bâtissez mouvement l'émergence pour tous ba le mois de juin du 2018 nous, le ben comité ah, comme ay chef d'entreprise lañu ay promoteur lañu nanu accompagner président Macky Sall parce que nous nañ né le plan Sénégal émergent moy li nga permettre nous, immigré yi nga xam ne dañoo bëgg Sénégal pour investir loolu mooy li nga xamee ne moo accompagner plus rapidement pour nous participer à la réservation du chômage en particulier les chômages des jeunes euh, bi nu ko defee ñu bâtissé ko ànd ci ak i góor ak i jigéen foofee France que Italie que Espagne ba ñëw au Sénégal bi nga xamee élection yi nu ñëw fii que Touba fas ci yéene ànd ak comité bu Touba Darou Khoudoss ndax nun Touba gii fi leen di juddoo màgge fi yaroo fi objectif doon faire ba président Macky Sall élection de di 2019 mu wuté ak élection yi nga xamé né mo fi passé mo fi jàll ci ñetti at yi loola nu ñëw fekk ci fi commission électorale bu Touba Daru Khoudoss ñu accueillir nu dalal nu nous and ak ñom ci liggéey bu rafet bi ba nous yegsi ci tey kon nu wax ne objectif bi dal moy bép sénégalais bo xamné da nga fas sa réew euh, participer à la réservation de chômage en particulier le chômage des jeunes na nga ñëw jàppale ñu ñu réélire le président Macky Sall de le 24 février pour nous engager pour émerger le Sénégal mais émerger que pour tous bi nga xamee ne mi ngi def le groupe consultatif bi mu doon def ci mois de janvier ci Paris noo nga fa woon teewoon fa waxtaan ak président mu boole woon ci euh, euh, investisseurs yi nga xamee ne ñoo accompagner pour ñu mën xam nan participer pour émerger et pour développer le Sénégal mu dolli ñoo encourager ci lim wax ne dana am taux boo xamee ne suñu defeti ay appel d'offres taux bobu dañ koy réserver les entrepreneurs locaux les sénégalais yi nga xamé né en particulier dañu nekkoon la diaspora pour ñibbisi pour investir ci Sénégal ni chinois yi défé italiens yi défé ko ba seenum réew émerger tay lolu mo nu gëna encourager encouragé waat ci ni nu ànde woon ak mom nu gën ko accélérer ba tax ma bayyi lépp luma ma daan def France sama entreprise ma nga ma délégué ko sama pour ñëw def fi un mois et demi pour ànd Serigne Mor ñoom pour que Macky Sall am taux boo xamee ne élection yi ci Sénégal mais gagné ko ci Touba. kon bu loolu jàllee da ngeen xam ñi ngeen fi gis ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn amu ci du Sénégal dara ko Sénégal kanam. may ànd ak ñoom guddi ak bëccëg lu leen naqari ak lu leen neex musuma koo xam ndax doy naa leen doy goo xamee ne fu ma leen jëmloo daañu fa jëm ndokk bi nga xamee ne fi ma leen yóbbu ku mel ne ci président Macky Sall ndax wax dëgg yàlla ni ko soñ Mor waxee léegi koo xam ne da ngay wër ab candidat defe naa boo jisee président Macky Sall dootoo jëm feneen ndax candidat la te mat na ko sëkk. nu gis ci moom ab yar gis ci moom ab teggin gis ci moom bëgg Serigne Touba gis ci moom bëgg Sénégalais yi gis ci moom it doxalin woo xamee ne bu ko defee ñu may ko deuxième mandat ci sept ans yi mu fu defoon mu defaat yeneen cinq ans muy douze ans jàpp naa ne Sénégal dana ci gis boppam ndax lii mu fi def bi mu ko fi defee ñëw fi boo ba tey mën nañu wax ne président yi mu fi fekkoon ak président yi nga xamee ne ñoo nekk ci Afrique gënu wër ak ñi muy xëccoon réew mi kenn koo xamee ne lii mu def Sénégal ci ñi fi jàll defoon nga ko fi ci président yi ko wër ci Afrique def na ko fi wala ñi muy xëccoo réew kenn koo xamee ne ci man ngaa def lu ton ne lii mu namm te yàlla dimbali ko. ba ñi nga xamee ne ñoom la war a ànd liggéey bi muy ay investisseur ñu financé ko jox ko xaalis bi xaalis bi nekk fii moom mi wuti woon xaalis bi am projet yi defe naa ne kenn ku ko dàqa def liggéey bi amul kon nan ko jàppale mu def liggéey bi Sénégal gis ci seen bopp waa Touba gis seen bopp waa Touba Darou Khoudoss gi waa Foras waa kër quartier Bëgg bàmba waa Alieu waa Guédé ñëpp gis ci seen bopp kon sëriñ Mor noo ngi lay xamal ne noo ngi ànd ak yow ci liggéey bu mag bii nga la commission électorale bu Touba Darou Khoudoss sumb mooy élection boo xam pour élire son excellence le président Macky Sall moo ko tax a jóg nu fas yéene ci ànd ak yow ci condition yépp nag bu ci mën doon daanu ci ànd ay yow fas ba nga président Macky Sall ay résultats dana gën résultats yoo xamee ne moom la daan am ci fan yii nu weesu wala ci at nu weesu. noo ngi leen di xamal ne képp koo xamee ne bu xaadim Njaay jógee nga jóg xaadim Njaay lenn dong lay woote wootewul lu may ñu dem le 24 février manko ànd Serigne Mor wax na ko ay kaar dana fi ñëw ay biis dana fi ñëw fu waay mën a nekk ak secteur boo mën a nekk bala ngaa fee jógee na nga ma jox say ak coordonnées jox ma sa numéro téléphone danaa mobiliser ay kaar yoo xam ne dana la fekk fa nga nekk teg ci ay hôtesse yoo xamee ne ñu maîtriser li ñuy def lay doon jox leen ay prostituées yoo xam ne maanaam président Macky Sall moo cay nekk ñu wan leen ko wax leen ko ni ngeen koy war a choisir wax leen ko ni ngeen di def ñi ci des wax leen ni ngeen di def enveloppe bi ba kenn ku ne bu demee dana wateel président Macky Sall wateel ko ci jàmm wateel ko ci yar ak i teggin wateel ko ci lépp loo xamee ne moom la santaane